fan yee jàll dañoo defoon benn conférence de presse yàlla suñu borom def ñu am ay kel ñu ci woowoon ci ci ci conférence de presse bi bi ñu leen woowee yàlla suñu borom def daanaka lu néew ñoo ci wootee remercier ci act bi ñu doon def waaye nag teewul dañuy jàpp ne lépp Sénégal la rek waaye ñoo ñooñu dinañ ci am ñoo xamee ne dinañ leen ci tudd sargal leen ci sant leen ci euh, niñ leen di santee mooy ndaxte nit ki bu fekkee ne dalaa woo ne la ah man de dama bëgg ñëw ñu jaamu yàlla ndaxte bëgg sa réew ci jaamu yàlla la bokk bokk na ci gëm yàlla bi ñu wootee euh, euh, ñi ngi ñi ngi sargal Serigne Abdoulaye Diop Xaas woo nañu ndokkeel ñu ba ba ba félicité ñu ci ci ci ci victoire bi nga xam ne am nañ ko waaye victoire bi du victoire wu man kese Sénégal la dañ koy sant bu baax di ko ñaanal yàlla yàlla na ko suñu borom gën a dimbali. Euh, kasaalika ku mel ne Serigne Moodu borom Kimaan moom tamit woo nañu te liste bañ defoon cinquante personnes lañ moom laa tuddoon seeni tour mais ñi ma ci woo presque euh, set personnes lañ muy Serigne Modou Kimane borom Kimane ñu ngi koy nuyu moom tamit di ko ziyaare di ko ñaanal yàlla moom gis nañ taxawaayam bu baax a baax Serigne Ahmad Hat Xasida moom tamit ñu ngi koy sant bu baax ndaxte woote yombul waaye woote bi ñu def dañoo woote kaay leen ñu ñaanal suñu gaynde yi kaay leen ñu ñaanal suñu gaynde yi bi ñu ko defee. ci la sëriñ Ahmad Lahat Xasida ci la ñu woowee ñaanal ñu ah ne ma am naa ci yaa am naa ci yaakaar waaye nag dama koy sant bu baax a baax euh, kasaalika ku mel ne sëriñ Idrissa Ndiaye moom tamit bi mu déggee missage bi woo na ma ñaanal ma yàlla te ne mi ngi ci moom xëy na xëy na dafa génn waaye da ko sant bu baax a baax euh, sëriñ Màkka Jaxate moom tamit euh, woo na ma Euh, ñaanal ma yàlla moom tamit ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko suñu borom dimbali yàlla na ko suñu boroom dimbali waaye di sant ñaari jëmm ji nga xame ne ñoo nekk sama ginnaaw ñoo nekk sama sama côté muy boroom sant yàlla moom tamit wax dëgg yàlla taxawaay bu am solo la ci def te gis nañ depuis bi kan bi commencé ba léegi saa su ne mi ngi mi ngi digle ay sarax di ci liggéey te li gën a li gën a am solo mooy nit di nit di la ngay liggéeyal nit te liggéey nit ki ngay liggéeyal xamula sax loolu moo ci loolu moo gën a yéeme ci mbir mi waaye nag di ko sant ndax gis nañ taxawaayam depuis ba kaan bi commencé ba léegi mi ngi ciy ñaan yàlla di ciy digle ay sarax la ca war bu koy def ba suñu borom dimbaliñu ba ba yàlla dimbaliñu ba ñu mën a jël ko waaye di di ziare sëriñ Axma Euh, suñu axmaloo borom ndaam ñu ngi koy gérer bu baax moom tamit kasaalika ndaxte jëmm ju ma marqué la yàlla dafa yàlla dafa def bi ñu defee conférence de presse bi daf ma woone ma lii de dañ koo yeex a def man ko wax loolu de dëgg la waaye lépp loo gi ma lépp loo gis rek am na lu ko am na am na fa ko suñu borom di jaarale muy booloo bi nga xamee ne woote naa ko te gis nga Sénégal jàmm rek moo fa xaj leneen xëju fi lu dul jàmm te jàmm nag nit ki moo koy sàkkul boppam nan la koy sàkkoo muy a ah, bu ma nee ñaan suñ borom suñ borom boole xol yi xëy na xolu doomu aadama moo xat waaye nit ki bëgg naa ab xolam ubbeeku mais du ko man nit ki suñ borom ab jagleel lay doon loo xamee ne ci mbir suñ borom lay doon kon nag dañ koy ñaanal yàlla di ñaan suñ borom taxawaayam gis nañ ko moom tamit kasaay la bi kaan bi commencé ba léegi mi ngi ciy taxaw li ci digle ay sarax di ñaan suñ borom bay suñ borom dimbali kon nag ngàcce ngalaama waaye daje bi dafa am ñetti ponk yoo xamee ne moo ko sabab mooy intention yi nga xamee ne amoon nañ ko mais intention bi lan moo ko jiitu mooy euh, bi Coupe d'Afrique bi commencé dañoo toog ma xalaat ne la pourquoi Sénégal sëriñ yi li fi nekk ci ay sëriñ ku ci nekk yaa ngi génn ci internet bi di wax na yaa fi yaa fi yaa fi dàq ñam ma gis ne ku ci nekk yaa ngi xëccu bu ma fédération bi feeñoon bu ñu ñëwoon sama kër ma jox leen coupe dama yaakaar ne nit ki bu fekkee ne woote nga ba sonn euh, boo wootee wuyuñ wuyuñ la war ngaa mën a def def say sacrifice ba ñu fekk si la sacrifice ba ngay def nag mooy bul xaar ma sàmm bul xaar ma dem ba mais ci loolu ci lañ taxaw benn kuréel bu ñuy wax ànd taxaw senegal ànd taxaw senegal mais kuréel bi li ko tax a jug mooy lépp loo xamee ne Sénégal mi ngi koy jongante ba ci basket wala football war nañ cee mën a participer sans ñuy xaar Matar Ba wala et cetera et cetera keneen ak keneen ba tax na ànd taxaw Sénégal boobu. depuis euh, première match ba lañ ko lañ ko wax am na ñeneen nag ñoo xamee ne ñëwuñu waaye bu ñu ñëwee rek dañ leen di yóbbaale lañ ko xalaatoon euh, ci lañ yàlla dimbali ñi doon def ci ay liggéey yu am solo ba gis nañ liggéey yi ma ci doon def ci ci ci ci benn sit boo xamee ne euh, Dakar la Dakar Live la ba nit ñi daanaka dañoo mujj sax bu match jotee dañ ñuy laaj. ndax dugal naa vidéo wala dugaluma ko moom lañ noonu lañuy def sant yàlla noonu la ñuy def suñu axma nga xam ne da ngay dem mujj ba gis ne lii nii nit ñi intéressé wu nañ ci waaye nag nit ki lépp lu muy def bu fekkee dañ koy encouragé boo jàppoon benn yokkal fukk boo demee ba déggoo kenn ku la encouragé toogal nga xolaat sa bopp kon nag loolu sant yàlla lay doon ginnaaw loolu dinaa am ñeneen ñoo xam ne dama leen di sant parce que mënumaa mënumaa mënumaa wax ba pare te santuma leen xëy na buggu bugguñu sax mooy tudd seen tur bokk na ci ay kilifa yu baax yoo xamee ne ba ma génnee def sama déclaration woote ne leen képp koo xamee ne yàlla suñ borom dimbali na la nga am loo mën a jaayante loo mën a sacrifier sa réew nga def ko moo xam ci xam-xam la wala ci ay moyens nga def ko ñu bëri woon nañ ma daanaka Sénégal gépp sax mën naa wax ne woon nañ ma ay sëriñ yoo xamee ne xaw sax maanaam xamuñu sax lan mooy internet ay sëriñ yoo xamee ne ñu ngi suivre internet bi ñoo xamee ne mosoo leen gis ñu toog ci média woo ne ma engagement yi ñu ci jël de dinaa ko def ngir sa jëmm ji man ko loolu de sant yàlla lay doon waaye ay nit tamit yëkkati seen alal jox ma ci ci ci xam nañ ni daanaka souvent lu bari ci sarax la ñuy ëpp lu ñuy yëngu. ay nit kilifa yëkkati seen alal lu takku sax ne ma man de xam naa ni awma xam-xam waaye am naa poos loo xamee ne mën naa la cee dimbali pour nga xool loo ci mën a def euh, xëy na bëgguma tudd tur nag waaye moom bu ko seetaanee dina xam maa ngi koy sant bu baax a baax yëkkati dina alal ju bari jox ma ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne dañuy def ay participer yu am solo ñu jënd ci ba yàlla maanaam liñ ci jot a def sax ci ci ci ci ci final bi sakkuwuñ nit di ñu ko delloo waaye dafa fekk ne nit bu fekkee ne dafay def dara jot na mu leeral euh, ak sacrifice yi nga xamee ne def nañ ko ci waaye nag di leen sant di leen sant bu baax di leen ñaanal yàlla di ñaan suñu borom gën leen a taxaw gën leen a taxaw ci seen njaboot di leen ñaanal suñu borom gën leen a dimbali gën leen a ubbi ndaxte ab jullit loolu rek la mënal mo moroomu jullitam nit ki bu nekkee ci euh, ci ci jafe-jafe mu dimbali ko bu nekkee ci naxaar mu dimbali ko bu nekkee ci bànneex tamit mu dimbali ko loolu lañuy ñaan yàlla nga gis ne euh, ànd taxaw Sénégal dafa am ñetti ponk yoo xam ne moo ko tax a jóg mais leneen ñetti rek moo ko tax a jóg bu njëkk bi mooy booloo te dañuy wax ne mbooloo mooy doole mbooloo nag bu ñu ko waxee mooy képp koo xamee ne sëriñ ga ci Sénégal ñu ngi lay tàll loxo képp koo xamee ne sëriñ nga ci Sénégal ñu ngi lay tàll loxo loxo bi ñu lay tàll loxo mooy nga ñëw ànd ñu liggéeyal suñu réew liggéeyal seen suñu réew mooy ba ci ba ci violence yi ngay gis ba ci euh, euh, euh, maanaam jafe-jafe yi ngay gis ci ci ci ci Sénégal loolu lépp lañu bëgg suñ borom ñu ba loolu loolu dootu amati muy ànd booloo boobu booloo bi nag mooy ñu di boole xol yi mu nekk benn te ñu bàyyi xasante bi ak ŋàññante bi ak euh, liggéeyante bi ndax li tax loolu li tax ma ni liggéeyante bi ginnaaw bi ma defee sama déclaration ba pare dama am lu tolloog sept personnes yoo xamee ne dañ ma cee woo menacé menacé ma ci ci loolu waaye man du ma ragal ku nekk ci dëgg doo ragal biñ ma waxee loolu ba ñuy bañ dem ba ne Sénégal du jël coupe bi man leen yàlla laa gëm yonent bi sa alayhi wa sallam ak Serigne Touba ak nit ñu baax ñi kon nag daanaka aw ma gisuma loo xamee ne damay ragal mais loolu sax jëruwoon ma koy tudd mais dafa fekk ne nit ki faw am na ci foo xam ne bu fa àggee faw mu leeral beneen bi ci booloo boobu lañuy sàkku képp koo xamee ne yaa ngi ñuy dégg nekk sëriñ ci Sénégal te la ngay wax nga man ko maa ngi lay tàllal loxo nga ñëw ñu liggéey nañuy liggéey nag mooy saabu bu di jongante wala wala Sénégal ak bëpp jongante moo xam basket la ak lu mën a doon ñu ñëw ñu jàppale suñu suñu réew ndax suñu réew rek lañu am ñaareel bi mooy numéro 2 bi numéro 2 mooy lu baaxul maanaam lu ba lu baaxul loo xamee ne dafa bokk ci société bi muy rawatina ci maara yi Euh, bu ñu nee maaraay nag mooy maanaam ñi nga xamee ne dañuy dañuy dañ ciy dugal lu ci bokkul waaw li ci bokkul nag mooy yenn yi nga gis maara boo xamee ne nee na sëriñ la dañ koy yónnee xaalis mu boole ko ko yónnee loolu murmur yi xam nañ ci dara wala ñu yónnee la xaalis nga toog euh, ki la ki la ko yónnee sax boobu la leen mujjee dégg di loolu ci ci ci ci lu baaxul la bokk wala ñu yónnee la xaalis euh, maanaam dangay mujj sax teg yeneen pexe loolu ci lu baaxul la bokk kon nag dañuy ñaan yàlla numéro 2 boobu li baaxul li nga xamee ne baaxul ci Sénégal ñu ñu ñu génne ko fi ci ci ci rawatina ci mbirum méccam sëriñ ndax méccam sëriñ dafa dem ba nga xamee ne da ngay mujj sax rus ci yenn yi waaye nag dañ koy sante yàlla xam ne suñu borom moo moo dogal euh, foo mën a gis ci àdduna am na ñu baax am ñu am ñu bon kon nag loolu sant yàlla lay doon troisième bi mooy taxawu Sénégal ñetti ponk la booloo mooy doole ak lu baaxul ak taxaw Sénégal ginnaaw bu ñu booloo nekk benn xool yi baaxul ñi jël ko sànni euh, taxaw suñu réew suñu réew ni ñu koy taxaw mooy bépp bépp euh, xew-xew boo xamee ne am na ñi woo waaye nag message bi président Macky Sall la ñuy parce que dañuy wax ne nit ki ak loo bëgg am yéene faaw nga am ay moyens pour def ko moyens yi nag moom rek lañ ci yaakaar pour ñu mën ñoo dooleel ñu mën a jël li baaxul ñu jël ko sànni xool li baax li rafet ñu jël ko di ko jëfandikoo ba lañ bëgg ñu am ko euh, ci ci la taxaw Sénégal nekk alhamdulillah aouzu billahi minash shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah alhamdulilah dañuy sant yàlla bu baax di nuyoo bokk àddina di nuyu teewaay bi di rafetlu jotaay bi di wax asalaamualeykum wa rahmatullah ñu jàll ci li nga xamante ni moo waral jotaay bi tey muy si ñetti ponk yi nga xamante ni moo waral lii bi ci njëkk moo de ne mbooloo te dañ ne mbooloo ne doole te mbooloo la koy dooleel mooy ne ñi nekk ci ginnaawam ñu xool lu mu laaj ñu xool pas-pas bi ñu xool lan mooy mébét bi ñu jox ko dooleel ko ci ba moom lam cay saaku man ko cay am lii nag defuñ ko ngir dara réew mi tolluwaay réew mi lañ xool am na réew mi toll na foo xamante ni tey ji day laaj képp koo xamante ni yaa ngi ci réew mi di woote di lal basang moo xam basang moo xam der yaa xam loo lal di wootewu ne dangay dimbali ñu ngi la ci woo yaa xam loo ci man ak loo ci manut ak bépp kilifa dañ koy def juste pour dimbali population Sénégal dañ ko def pour juste suqali suñu réew dañ koy def juste aussi tamit réew yi nga xamante ni tey représenté wu nañu dara ci àddina bi suñu réew man see bokk ñu jàll euh, ci beneen ponk bi mooy wàllum football bi dañuy sant yàlla ci wàllum football bi lañ ci daj kooku moom ñun la du dërëmu état du dërëmu population bi du dërëmu kenn parce que toll nañ foo xamante ni tey waxuma la population bi rek mais suñu joueurs yi génne fii ci réew mi di dem bitim réew di football baat yañ lañ di sànni kàddu yañ lañ di sànni mu leen di naqari te tey jii tey si télé boo tourné tapé jamono ji foo mën a nekk si àddina dinga fa gis sëriñ dañoo bari bari bari ba nga xamante ni moo xam foo mën a nekk rek da gis sëriñ si site internet yi ci média bi tey nag ñu war a mën a booloo ñun ñëpp ñu booloo doon benn ànd taxawu li nga xamante ni tey jii mooy suñ équipe parce que ñun équipe bi lañ am. ñun ay patriote lañ ay autorité lañ ay citoyen lañ la ñuy def ku ñu ci saaga xoolu ñu ci ku ñu ci saaga ñu ci ku ñu parce que ñun ay sagaru nit kese lañ ay mbalitu nit parce que sëñ Touba moo ñu gën téeméer yoon waxuma la gën sax waaye mbalitam sax moo ñu gën gannaaw jëmu ju tedd jooj la ay nit ñu bon mën a toog ci ginnaaw di ko saaga maa ngi jégalu sax ci ni mu ko waxee asumala ñun ñu xeebu ñi ñun ay jaami xeebu lañ kon lañuy ñuy def buñ ci xool ñooñ la saaga ñun nañ xam lii nga xamante ni tey mooy suñu intention ci réew mi parce que réew mi fu mu avancé ñun la avancé la dafay baax ñun ñi nga xam ñu ñooy population bi ñun ñi nga xamante ni en tant que patriote du président du ministre du kenn ñu jël suñu initiative bopp taxaw lii moo ñu war ci réew mi ci suñ xam-xam ci suñ kàttan ñu doxal ko beneen bi ci topp mooy ne suñ biir ñun ñun ñaankat dëgg la jamono ji ñoo lëmbee dëkk bi loo wax ñu ne vaar sëriñ si loo wax ñu ne nii ñaari soos nag euh, laa ci jàllale bi ci njëkk jëmm ji toog amul fu mu demul ci réew yi ci biti réew moo xalaat fii ci réew yi ci biti Afrique Gisaaso Mali Togo Benin foofa wàcc foo laa ci sant yàlla dinañ la ba man fa ma ne fépp laa fa xam man fépp dama fay liggéey foof dama fay dem di fa faj dem ba ñoom dañuy ñëw di gëstu sama xam-xam mm. bu dee ci wàllu wuruj ak njuuj ci biti la ëppee te ñi nga xamante ni tey jii ñu ngi ci réew mi ñooñu lañ gën a soxla ñooñu di leen ruuj beneen bi mooy ñun suñu biir te boo gisee ñu taxawal association bi tamit créer groupe bi parce que deru sëriñ yàqu na te ñun ñoo ko mën a defaral suñu bopp nuñ koy defaree nag état moo ñuy mën a may doole. mboolem koo xamee ñaankat la dañ la indi si groupe bi di nga bokk ci groupe bi ñu xool sa capacité xool sa dayo loolu ñun ñoo koy lijjanti seen bopp du kenn parce que loolu yoonu état nekk si état daf ñuy may doole daf ñuy may doole pour lu ñu mën a lijjanti si dëkk bi lijjanti ko parce que dafa am loo xamante ni baaxu si ab dëkk teef bu bon la ci dëkk woy bu bon la ci dëkk benn tey yow boo génnee sax da ngay am gàcce kii di wax mu ne moom kilifa la ñu lire message bi làkkat bi la lay liiroo message bi kii laa la bind nga ne ko aw saaga la gàcce goo xamante ne la sax yow yow rus nga kaa wax ne lii saaga la to lii moo waral tey suñ groupe bi lii moo ko waral mboolem koo xamante day wuruj moo xam képp kuy wuruj di nga bokk ci groupe bi te dinañ la dénoncer carrément kat yow mii nii nga meloo nii nga bindoo lii mooy sa initiative parce que foofu lañ tollu réew mi foog mu jub foog mu tranquille parce que population bi dafa am lu ñu soxla dafa am fu réew mi toll te dafa laaj defar ni ñu jëlee maire yi changé leen xam ne baaxuñ ci réew mi noonu la tamit ñun suñ biir ñu sëriñ si ñu xam ne lii baaxul ñu jël ko génne ko xool li nga xamante ni tey jii moo baax ci réew mi dëgg la ñaan yàlla yàlla mooy nangu waaye yow mii ñaanal nit ki dalay leer biir ne kii ma jàkkaaroo mënul mënul mënu ma kaa ñaanal pour lan yow nga mën a jël alalu doomu aadama di ko lekk tëdd si nga ne yaakaar ne si di nga nekk si jaamu loolu day dakk day dakk taxawaay bi tamit nag mooy ne képp ñu ngi ci woo képp képp ci réew mi moo xam population bi parce que population bi li ñuy critiqué mara yi yëpp yëpp yëpp tey jii buñ gisee koo xamante ni mu ngi ci lu baax ñoom dañuy ñëw dooleel la kon ñu ngi ci woo ñëpp koo xamante ni tey jii am nga yéene ne bëgg nga ñoo may doole ci lii nga xamante ne tey jublu nañ ko ñu ngi la ci woo nga may ñu ci doole parce que lii mooy suñu option parce que Sénégal dafa war a bokk si dëkk yi nga xam ne représenté wu na dama lay Cameroun dëkk yu bon yooyu xam ne ay sagru dëkk la macha allah dëkk bu am macha allah dëkk bu neex la dëkk bu rafet waaye dañ représenté wul dara ci Afrique balaa nga koo xam nga génne nga xam ne ñu représenté wuñ dara dara dara dara te dañ war a doon dara doon dara goog nag ñu ñoo koy liggéey ñu ñoo koy liggéey fii ci dëkk bi di ci woo ñëpp wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajmahin anta rahimu samadu rahmanu almuhminu almuhayminu almannaanu ikfil bala wa jumlatal wabaahi wa suxilal ahdaai kulla daay mbokk internet yi mbokk sénégalais yi ak fu ñu mën a nekk ak Afrique ñu ngi nuyu ñëpp di leen ndokkeel di leen ziyaara nuyoo bi nag nuyoo jàmm la ndokkeel bi nag mooy ndam li ñu suñu borom may te ñu koo wut ay at amuñu ko at mi biñ ci egsee mel ne borom yëg-yëg yi wala boog borom gis-gis wala boog ñi yàlla may basiira yëge ci ne coupe bi day ñëw ren. xam ne jiitu kaan bi ko am gis-gis te am basiratul xal bi xam ne kaan bi ren ñun ñoo ko moom kon sama mbokki sëriñ si du ñun ñi rek de mais am na ñeneen ñu toog nii dañu gis ne nekku ne mbooloo mépp war a a toog waaye ci ñeneen ñoo xam génn sax ci bi waaye xamoon nañ ne kaan dafay ñëw waaye nag ci kàttanu yàlla nag yàlla tam suñu borom bu la wanee dara ba pare dafay wax na ne lii kat boo ko defee lii mooy tax mu ñëw mooy sarax yi ñu doon digle ak di ko yëgle mm-hmm. des fois boo gisee nit wax dara ba pare amul ñu ko yóbbu ay vaare yooyu loolu gàtt xam-xam la mm-hmm. moo ñiy gis dara ba pare wax ko te fekk ne sarax ba mu war a àndal xamuñu ko ba waxaale sarax ba mm-hmm. moo war a souvent nga gis ni wax dara ba pare mu nekk naka sudd noonu ñu yóbbu ko vaar ne moo fexoon lii nangam ak nangam bu ngeen am na ay événement yu bari fi jaar pas sax euh, Coupe d'Afrique mais ay làmb jaar nañ ci ñu wax ci te buñ ci waxee nañ ca waxee noonu la demee kon ñoom ñii ak suñu nawle sëriñ si nga xam ne am na ci ñoo xam ne du ñu génn internet bi xëy na ñun ñi moom xamee ngeen leen ñu ci internet bi am na ci ñoo xam ne internet du seen biir te mm-hmm. ñu ngi toog ci mbooloo mi kon mbooloo mi li ko def mooy ñun dañoo bokk ay gis-gis bokk ay bëgg-bëgg mm-hmm. muy suñu réew mu ñor ñi parce que yéen saa saa moo wax ci hadiis ne mm-hmm. dafa bokk ci iman muy bëgg sa réew bu sa réew woote woon pour xare ji dangaa war a solu soldaar dem xare ji su fekk sa réew dafa woote leneen tamit da nga caa war a bokk ngir jëmal réew ma ca kanam loolu soo ko defee nekkul ne président Macky Sall nga ko defal nekkul ne ministre Matar Ba nga ko defal nekkul ne Augustin Senghor nga ko defal parce que bu ma gisee nit naan bi mu woowee suñu ma fayee suñu ma defee nangam ma ñaan diggi wala nangam da xam ne yow ngaa xam lan mooy réew ak lan mooy patriotisme ak itam lan mooy dret ci yow bu doon bu doon bu doon sa union nationale maanaam sa dret ni muy yëngoo nga ne boo demee bala nga ko xaman nag mooy ñi tukki ñi xam nañ ko boo génnee ci biti ba dox ci mbedd ba dégg sa union national sa dëkk dafay mel ne sa carré bopp day taxaw c'est parce que da ngay xam ne tudd nañ tudd laal nañ sa deret loolu ne ku nekk patriotisme dëgg dëgg dëgg dëgg doo ko xam moo tax ñun bi loolu amee ñun ñëpp dañoo jàjj woon ubbi ay groupe whatsapp ñun ñi xam ñoo bokkoon gis yi bokk bëgg-bëgg ñu daan def ay dog chaque jour bu marché amee dañuy def ay dog kenn ku ci nekk na la suñu borom wan ci la nga gis ci sarax nga wax ko nit ñi def ko bu dee boo mën a def nga defal ko sa bopp laa ñu ci woon kenn dara man te première yooyu ma ci njëkk def dama wax ne ña laajuma ci kenn dimbal fayeeku ma ci bu ma ci kenn jox dara souvent nag des nit wala ne la sëñ bi de man wax dëgg yàlla am dama ci bëggoon participer ne la loolu nag da gis ne kon ku bëgg sa réew ni ni yow la moo def loolu kon ñu xamee ne doomu aadama mënul am ndam lu defu ne réew dafa am ndam wax nga ne ko sànq soo demee ci biti da ngay dégg ñu ne yéen jëloo leen dara yéen gañëwoo leen dara c'est parce que kon teguñuy fenn te donte sax xam ne Sénégal yëpp waaye dañuy gis ne Sénégal mosul gañe dara loolu nag bokkoon ci yi ñu doon xeexaale ñun daan wàcce ay kaamil daan def ay ay ay yaasin yu du jeex ngir équipe bi ba ci lay suur suur combat bi suur euh, euh, kii bi match bi ñun ñëpp ñu booloo def suñuy dox ginnaaw bi sarax yi génnee pare toogaat nag yor suñuy kurus ngir bëggoon réew mi am ndam bi mu amee ndam ñun ñëpp bokk am ndam réew mi ñëpp kontaan ñi mënoon a ñaan ak ñi mënut a ñaan ñi xamoon luy ñaan ak ak ñi ko xamoon ñëpp. yàlla suñu borom dogal nañ ñëpp kontaan mm-hmm. kon ñi ngi ciy ndokkeel président de la république moom mi nga xam ne mooy mm-hmm. njiitu réew mi mm-hmm. di ko wax nag ne suñu fondation bi wala boog suñu suñu groupe bi wala boog mbooloo mi li ñu bëgg mooy jóg taxawu réew mi ci fànn yëpp jàppale ko tamit ci lu mën te laaj ñu ko ci dara bëgguñu ci dara liñ ci bëgg rek mooy suñu ndamu réew ak ci lu mën a xew dinaa ko wax sànq ne réew mi nekkul ne sax équipe bi rek lañ soxla woon waaye réew mi ci moom day laaj sax des fois ñaan ci jàmm dëkk bi daal ndax li mën a yëngal dëkk bi bari na lu mën a taal dëkk bi bari na te loolu lépp ñun bëgguñu ko parce que bu ko defee rek suñu réew dina déstabilisé wu kon ñun li ñu bëgg mooy réew mi am jàmm toujours dañ ci ñaan gratuitement dégg nga li leen ci topp mooy mbooloo mi nga xam moom lañ moom lañ formé muy mbooloo moo xam ne loolu ma leen wax rek jàmm rek ko tax a jóg beneen bi ci bi ci mooy ñun ñi nga xam ne nii ñun ñu tudd ay sëriñ bari ci ñoo xam ne nii maa ñoom yam seen aliou daa gàtt lool teg ci tamit ñu bari wax lool te rafet ay garam bu lool ak i mbaxana te maanaam ak lii fanaanu seen bopp wax naa leen ñoom seen bopp boo leen laaj alxuraan ñaata isib la ak isib bu nekk nan la tudd duñ la ko wax masaa wax ci benn vidéo kon loolu rek ci gàtt xamal bu ndax mënuloo ne yow am ñaankat nga te peegoo dara ci alxuraan waxuñu sax nga mokkal ko mais nga peeg ci dara sax peeg turu yàlla mm-hmm. peeg xawaatim comme euh, ñoom ni koy defee mm-hmm. dugal yi ak génn yi xam lu ci ne la mu taxawee ak boo ko doon utal sarax nan ngay tëggee sarax bi ak itam boo bëggee am ñu la ci jàppale nan ngay tëggee loolu moo xam xuddaam la moo xam la yooyu noonu xam-xam la yoo xam ne nii ki ne day ñaan war na ko mën waaye bul gis rek nit ñi tëb dem ci internet bi rek nga ne comme gaa yaa ngi ci gis seen bopp xaar ma tëb dem loolu tamit dañoo bokk ci ñu koy xeex di ko donase wax na ko sama vidéo yu bari yàlla su fekkoon ne waa diaspora bi képp koo xam ne dugaloo leen la xaalis di la ñaan la benn ñu wala jotuñu la wala nga bloqué leen wala yu demee noonu damay faral di wax man sama bopp dama naan ku ma ko def na nga capturer xaalis bi ma yónnee woon am ñëpp am ay mbokk Sénégal nañuy jël loolu yóbbu ko police nekk kii sama mbokk daf ko envoyé woon xaalis di ko liggéeyloo liggéeyalu ko te ba pare bu ko wee du ko loolu dama man bokk ci li ma koy xeexe man loolu laa joxe man sama bopp laa ko joxe te wax naa ko ci vidéo yu bari ñu may seetaan xam nañ ne maa ngi koy wax puisque man bëgguma lekk benn dërëm bu ma léewul ñun ñi nga xam ñoo fi rek ñun sëriñ si tamit ñun ñëpp manqué nañ te mancé ci loolu ba nga xam ne ñun dañoo jóg nañ ñun taxaw temm ci xeex loolu. Mm-hmm. kon loolu tamit yéen yéen ci mën a jàppale. rawatina la euh, wax na ko sànq am loo xam du président moo koy jóg du police ko ñun ñoo koy jóg mm-hmm. leen désecté leen ko defee parce que am soxla waxtu wu ñu seetaanee gis kuy wax soxlaam day tege ne kii kat na ci dara. Mm-hmm. fekk dafa capturé soxla ko rek am na soxlaam yoo xam mënu ko kon su ko defee loolu xam-xam la boo xam ne nii xam-xam bu riis la ñu juddi woon fekk suñu baay yi ak suñu maam yi nekkoon ci moo xam aada ak cosaan ko mel sant yàlla nga xam dañu liggéey ci lu mel ne aada ak cosaan ak yeneen yooyu seex mm. ak akim yi nga xam ne yeneen mm. nga xam ne kenn ku ci nekk rek am na foo nampatoo xam-xam bi ngay wax mm. te boo tëb rek xëy xëy rek di janoog nit ñi di wax kon loolu dañoo taxaw ci dénoncé ko ñu ngeen jàppale ci yéen sénégalais yi waaye itam ak yéen presse tamit ndax lii ñuy wax nii bu dóoroon yéen ñu nañ ci sant baax bu dóoroon yéen di jàll hmm. ndax sal gi ku nekk mën koy naqal sa mais a seetaan mais bu ngeen booloo nii ñëw hmm. macha allah ngeen bari fi lool jàpp naa ne message boobu ñuy dina jàll hmm. te bu jàllee yaakaar na Sénégalais yu bari danañ ci jot kon ñu xam ne loolu ab euh, kii woon ab lay la boo xam dañ koy dañ koy dañ koy dañ ko doon wax muy ñu ànd booloo doon benn ñun sëriñ si jub si beneen bi ci toppit mooy ñu jëlee ci li ci bokkut te mooy lu mel ne xiiroo yi ngeen dégg ŋaayoo yeeg gaarawante yeeg dàggsante yeeg garmbaasu yeeg yóbbante police yeeg loolu bokkul ci xam-xam damay faral di wax benn suur dégg naa benn sëriñ bu mag benn sëriñ benn waaye nekk ceentem di ko saaga moom bu koy saagaa mënu ci moom dara loolu bokk na ci ñàkk xam na yow xamuloo dara te bokk ci ñi gën a rafet yi garaam bu bokk ci gën a rafet ay mbaxana te bëgg bi xale bu ndaw di dagalu saaga nga di ko dégg sa mbokk yëpp di ko dégg ak sa baay ak sa yaay te ci dara te loolu jàpp na bu doon am nga xam-xam loolu mën nga ko fajal sa bopp te du jar dem police ab bi dem police man ne musuma yóbbu nit police ci kaw suuf la mënta moom la kilifa daan def bu njëkk musu leen gis benn kilifa ci kilifa yu ko ñëw a ci war a jàpp yéen sénégalais yi waaye itam yéen internet tamit bu baax nit ñi nga xam ne tamit ñoom ngeen di faral di jox nit ñi donte yéen sax du xam nit ki dëgg dëgg dëgg dëgg man ngeen am lu ngeen xam ci moom waaye am na loo xam ngeen xam ci moom kon loolu tamit maanaam ñu leen ko doon

ànd taxaw senegal bii ñuy def du euh, turu politique loolu taxaw ñu jug la ñu taxaw jug mooy euh, nit ki nga xamee ne dafay nekk ci jafe-jafe parce que ab sëriñ ab sëriñ dëgg dëgg dëgg dëgg duñ ko xamee ci ay politique ak yooyu dafa am lu ko taxa a jug dafa am benn mission boo xamee ne da ko war a àggale nam koy àggalee mooy ah lépp loo xamee ne réewam soxla na ko mu mën koo def euh, lépp moo xam ñu boole ko ci wala ñu ñàkk ko cee bañ boole loolu moo tax ànd taxaw Sénégal te saytu nañ ko bu baax a baax bu doon fekkee dañuy dugg ci côté politique sax nga mën a wax mais duñu politique la ñu taxaw jug mooy ñaan yàlla ñaan ñaan Sénégal jàmmu ba lépp loo xamee ne Sénégal soxla nag ko suñu borom def ko mu sotti loolu moo tax euh, ànd Sénégal euh, ànd taxaw Sénégal loolu moo ko tax a jug. dégg mhm. jàmm mooy. waa jàmm xam nga damay wax ne booloo nee ponk bu njëkk bi mooy ñi boole booloo nekk benn mbooloo nag mënoo koo am mbooloo moo tax ñi naan mbooloo te amoo jàmm dañuy wax ne jàmm ci biir mbooloo la dëkk parce que mbooloo bu fekkee daf la dimbali nga taxawal ko euh, jàmm ja nga bëgg di nga ko mën a am waaye ci kaw nit ki nga xamee ne dafay bëgg jàmm moo tax daanaka jàmm dafa dugg ci biir booloo jàmm googu la ñuy soxla parce que dañuy wax nit ki moom bu amul jàmm mënut a réaliser dara yàlla mënu koo mënu koo jàmm maanaam mënut a am lenn loo xam ne da koy sàkku faaw bala nga am dara wërsëg sax bala nga ko mën a am faw nga am jàmm moo tax suñu borom mën laa wërsëgal kon nag dañuy wax ne jàmm ci la lépp nekk euh, jàmm mooy mooy mooy mooy mbooloo ñu nekk benn mën a xam lu ñu def waaye ci loolu dama am ñu ma fàtte ñoo xamee ne ci sant bi suñu euh, Cheikh Bara Ndiaye euh, moom dama ko fàtte waaye maa ngi koy sant bu baax a gis naa taxawaay bi ci match Sénégal bi jàll waaye maa ngi sant tamit kilifa yi nga xamee ne doon nañ ñaan ci ginnaaw bi ma wootee doon nañ ñaan ñi nga xamee ne xëy na bëggul ma may tudd seeni tuur ñii ñi ngi dëkk Touba ñii ñi ngi dëkk ci ay dëkk yoo xamee ne sax euh, dëkk yu sore lay doon ci Sénégal maa ngi leen di sant gis naa seen taxawaay ba ba jour match bi sax nit ñi dañ maam dañ may woo ba ba du xam sax lan laa leen di wax kon nag dama leen di sant di leen ñaanal yàlla di leen waaw loolu dina dina dinaa ci ñëw ki nga xamee ne dafa waaw loolu lépp dafay am day am ay carte membre yoo xamee ne faaw mënut a ñàkk parce que association boo xasee am faaw nga am carte boo ci bokkee faaw nga am carte muy wane ne yow ci nga bokk ginaaw boo ci bokkee dafa am benn numéro boo xam ne dinañ ko joxe mais comme masalan ku mel ne suñ euh, euh, sant yàlla borom sant yàlla ñëpp xam nañ ko Sénégal képp koo xamee ne soxla nga ko boo demee YouTube boo bindee sant yàlla dañuy gis ay vidéo boo ko soxlaa ay numéro di nga ko mën a euh, ku mel ne euh, sëñ Axma Lo borom ndaam moom tamit kasaalika képp koo xamee ne soxla nga ko boo demee ci YouTube bi boo bindee sëñ Axma Lo borom ndaam di ko gis boo soxlaa ay numéro mën nga ko woo man kasaalika boo bindee alxakim rek moom kenn dootuma naatable waaye dafa am benn numéro bu ñuy joxe numéro bi may joxe nag soxlawuma nee naa ci du ma soxla client di ma ci woo numéro bi may joxe soxlawuma client ndax parce que client bu ma ci woo du mën naa ko wuyu ma xamee ni client la dama lay reseté euh, numéro bi may joxe sëriñ yi nga xamee ne dañoo bëgg a bokk ci association bi muy ànd taxaw Sénégal numéro bi may joxe dama soxla nit ki nga xamee ne dafa am ay moyens pour mën ñoo dooleel parce que mbooloo mooy doole numéro bi may joxe mooy nit ki nga xamee ne am na yëg-yëg am na idée boo xamee ne bu ñu ko waxee bu ñu ko defee yàlla mën dinañu mën a dimbali moo tax may joxe numéro boobu mooy 77 168 95 11 mais soxaluma client bi nga xamee ne dafay soxla mu soxla ma wala mu soxla sant yàlla wala mu soxla suñu ax ma soxlawuma nit kooku ñun ñett képp koo xamee ne am nga ci soxla kenn rek boo demee ci internet bi boo bindee tour bi rek di nga di nga gis jëmm ja di gis numéro ba kon loolu lañ doon tënkee di ñaanal di ñaanal suñ suñ borom defal ñu jàmm. yéen ngi woote. Mhm. ñu bëggoon xam ba xam sëriñ yi nga xamante ni. Mhm. fan yi génn nañ ci TikTok bi wax li nga xamante ni amul. Mhm. dañuy bokk ci association wala ñooñu ñoo tax ngeen wax wala da ngeen bedd ci association. Ah, maanaam euh, gis nga association bi li ko tax a jóg. mbooleem ku naan ku ni sëriñ ga nee naa la trois ponk la. ponk bu njëkk bi mooy mooy booloo. deuxième ponk bi mooy lu baaxul lu baaxul boobu mooy to mooy question mooy réponse bi. li baaxul nag mooy ki nga xamee ne saytu nañ ko ba gis ne ay mbiram. lëndëm na ñu jëm koo seppi loolu mooy deuxième ponk bi troisième ponk bi nag mooy xool lépp loo xamee ne Sénégal bëgg na ko ñu mën ko ko mën cee taxaw moo xam ba ci dañuy wax ne ba démb ñu ngi dégg suñu président bi di wax coupe du monde coupe du wala euh, quart de finale coupe du monde sax coupe bi mën nañ ko jël bu ñu booloo nekk benn kon nag looloo tax ñu ñu ñu def euh, association bi di leen sant nag di leen gërëm xam naa euh, temps bi jot na mais dañuy dañuy dañuy jégalu xam ne lu fi jub rek jubug suñu boroom la lu fi dëng rek ñu xam ne matériel doomu adama la. mais duñu mhm. euh, mhm. li ko tax a jóg. waaw li ko tax jóg nag waaye li ko non li ko tax a jug mooy ñaan yàlla. waaw faj bokku ci ñaan yàlla moo ko tax a jug. koo xamee ne am nga yaakaar ndax taxaw Sénégal mooy Sénégal nan ko mën a taxawoo tey jii eh, coow am fi wala ñi nit ñi nekk di di di manifester bay xeex nga mën a toog sa kurus ñaan suñu borom wax ji fay. loolu moo ko tax wala Sénégal di football nga bëgg koo jàppale mu gañ équipe ba loolu moo ko tax a jug waaye soxlawuñu ay mbër di mbëre di bëre seen biir soxlawuñu ko la ñuy soxla mooy Sénégal dafa génn di wuti ndam pour mu mën koo indi. loolu lañ soxla soxlawuñu tamit kuy faj liñ soxla mooy nit ki nga xamee ne dafay toog ci si sijaadam di ñaan suñu borom ak anam bu mu ko mën a defee nag moom lañ kooku lañ soxla waaw kon nag daanaka xam na leen tamit Sénégal mhm. comme ni leen nit da leen loolu loolu de loolu waxtaan nañ ci loolu beneen anam la loolu waxtaan nañ ci ba pare euh, lii gën a am solo mooy mbooloo daal mooy doole mbooloo bi lañ ci sàkku loolu lépp lijjanti nañ ko suñu biir te mbooloo mi du ñun ñetti kese am na ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci biir xëy na ñun bu ñu ñëwee rek ñoom dañ leen di yóbbaale waaye kon nag loolu euh, daanaka waxtaan nañ ci ba pare xam naa dañuy gàttal euh, di santaat yàlla di santaat yàlla di santaat yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ndaxte dañuy wax ne nit ku ci nekk boo xoolee démb ak barki démb ku ci nekk sa xol mi ngi sedd xëy na ka ko jëmm ju ko def sax xamuñu ko waaye dañuy sabablu da nit ki doomu aadama da ngay sabablu rek boo sababloo yàlla suñu borom mën na mën nañoo dimbali dañuy ñaan yàlla Sénégal jàmm sax fi parce que fan yi moom gis nañ ni jàmm am na lool waaw te yàlla na yàlla barkeel yéen ñi ñu fekk si nag ñu woo woo leen ngeen ñëw dañ leen di ñaanal ku ci nekk la nga bëgg rek ci sa site yàlla na la ko suñu borom defal parce que woote ñu wuyu si la yombul kon nag dañ koy sante yàlla di di di ñaan suñu borom gën ñu dimbali ma musal ñu ci seytaane parce que saytaane baaxul waaw fu mu xaju rek lay dugg mbooloo mi ñu taxawal yal nañu ko suñu borom gën dimbali ba lañ ci bëgg ñu am ko ñu dem ba ràññee ñu bu baax a baax a baax ci ci côté dëgg parce que lu dëgg lalul moom daanaka baaxul